salaamaaleykum les patriotes maa leen nuyu di leen ziar seen def benn vidéo si oto yi nga xam ne dañuy dugg dañ leen a interdit ñu dugg Sénégal def moins de huit ans pour di ñaan le président Ousmane Sonko président Diomaye ñu dindi am commentaire yoo xam ne foofu ma tontu ko leeral ko muy ñetti commentaires yi ñii moom wax ji dañ koo jëmale US maanaam États-Unis man waxuma pour États-Unis damaa wax partout pour monde bi parce que def naa Amérique latine def naa Afrique def naa Europe def naa Amérique gi bi ma juddoo tak ba fer xàmmee laa defar oto bu ndaw oto foyekaay yi buy signalé di def lépp di di di avancer di arrière <laughs> sama papa kii moom c'est bon ñu teel a xam ne bopp bi oto rek moo siy nekk. kon li may wax xam naa ko maîtriser naa ko mais bu ma nee visite technique 3 mois Amérique fii nii 4 mois auto transport yi parce que transport li muy tourné moom moo bari day tourné auto transport bi 3 mois yu nekk oto bi dana def dana def xom 4 euh, mois yu nekk oto bi dana def visite technique. am na yeneen dëkk yoo xam ne du Amérique Amérique taxul moo na wax monde monde bi yëpp laa doon joxe exemple vidéo bi lépp du si xaj li des xel moo koy yeggali. you know bu doon ko damay wax pour États-Unis kese damay wax pour Amérique mais dama dama wax pour dëkk yëpp dëkk yëpp na bokkuñu même États-Unis sax loi yi bokkut loi New York taximaan yi 4 mois la ñuy la ñuy dem def visite technique oto yu particulier yi un an parce que li muy tourné transport bi moo tax kon mënut a bokk ak yeneen dëkk yi yow xamoo lu xew siin xamoo lu xew fee man waxuma pour États-Unis mais li may wax pour partout la lépp Sénégalais yi seetaan vidéo ma leen di wax mooy loolu dégg nañ man message bi ma jàllale mooy amul fenn si adduna bi foo xam ne dañuy éliminer oto yi ne oto yi oto bu mu duggati si dëkk bi di def teg ko si ay âge amul bi baax ñu def yaatal visite place visite technique yi oto yi di fay assurance oto bu accident assurance fay la nit ku gaañu si assi boo xam ne da nga sogee assurance delloo la fay la xaalis famille bi ki nga xam ne daf si gaañu assurance mën ta fay bakkan mais mën na jox famille bi ndàmpaay parce que pendant ay at yaa ngi fay assurance man loolu laa wax yéen a ngi may dégg kon yaakaar naa sénégalais bu ne mën nga comprendre parce que bu ñu deful loolu état day ñàkk xaalis bu bëri si oto yi nga xamante ni ñu ngi koy interdit parce que tey man damay yóbbu ay oto Sénégal ay oto yu accidenté yu mbëkk yu amul moteur mais oto yooyu moins de cinq lay doon moins de huit ma jëlaat moteur jëlaat ay porte jëndaat lépp dugal si oto bi dem toliyee ko peinture ko bu ma ko génnee port ba pare ba pare muy dawaat biir Sénégal noonu ngelaw la dem na bu mbëkkee yàqu am na ñoo xam ne dañuy jënd oto diaspora fii yóbbu ko Sénégal jugal ko Gambie def seen i pexe ba oto bi ami kayit ñëwaat biir Sénégal di daw mais loolu état moo siy perte kon état bu dindee aasu oto yi am na ñu naan 10 ans ay 10 ans yëpp jaru ko na dindi loolu na dindi li mu def def af ay ay date amul fenn amul fenn si monde bi oto bi nag carte grise bi wér visite technique bi bu mujjee passé Europe bu ñëwee na ko continuer moo xam muy un an moo xam muy trois mois moo xam muy man loolu laa wax mais foo dafa bëri xam ne dañoo bëri xam loo wax rek am nañ si commentaire bu bokkul ak boo xam ne li ñor mooy li may wax te mu am solo man pour man loolu mooy l'essentiel parce que tey boo demee lisance taxi yi dangay ngay gis licence taxi boo xam ne fii nii dëkk yu bëree bëri laay wax seen licence taxi yi oto bi nga yor di ko taxé bu bu màggetee day dem jaay oto bi wala mu wala état jël oto bi moo xam pexe yu ñuy def nga jënd oto bu bees jëlaat même licence ba nga yoroon si oto bu màgget bi moom ngay jël def ko si oto bee di ko dawee mais na looy fay dëkk yu am na dëkk yu bëri yuy doxee noonu mais Sénégal nga gis licence boo xam ne depuis 1960 taxi boobu noonu mooy dem ba porte bi di watt ñu di ko bokk wala ab sept place boo xamante ni si benn benn licence boobu rek lay dawee loolu du dëgg du yoon war nañ mën a feexee def ba nga xam ne pour état bu Sénégal mën a gagné mooy oto bi boo jë boo demee ba sa oto màgget nga jënd waat oto bu bees wala moo xam venant de France bu mën di jógee nga dem déclaré ko Euh, euh, ñu fay loolu ay ay ay ay ay ay ay droit pour oto boobu nga mën a jël sa licence bi nga moom te mu ne sa tur nga di defaat ko foofu nga mën a am taxi bu bees toujours da ngay bugg di am taxi bu bees parce que oto bi def taxi transport dafa war a lix loolu mooy dëgg mais yow bu nekkee dama def vidéo nga jël vidéo bi ne xanaa du États-Unis man ma nekk Amérique gii yor oto comme ñëpp xam li fi oto di doxee di fi jënd oto di yóbbu Sénégal di def lu nekk ah def ko Europe def ko Amérique latine def ko Afrique def ko fépp fépp laa def si si àdduna bi daanaka kon li may wax xam naa ko de dama ne état bu Sénégal mu ngi perte alal bu bari si loolu bu ñu bëggee dimbale ñun Modou Modou yi bu bëggee dimbale Fatou Fatou yi bu bëggee dimbale diaspora li gën a li gën a fort nga xam ne bu ko defee acte ñëpp danañ xam ne acte bi danañ ko rafetlu mooy oto yi mu dindi aas yi yooyu noonu mu dindi ko amul 10 ans amul 20 ans oto bi na carte grise bi wër maanaam bulletin de santé bu oto bi comme gars yi dañuy reetaan loolu moo répété ko nag bu amul problème beneen bi mooy ñu fexe ba diaspora képp ku soxla passeport nga am sa passeport parce que problème passeport partout la si dëkk yu bëri si diaspora da ngay dem déposer passeport wala ñu lay jox rendez yu sori pour nga mën a jot sa passeport beneen bi mooy décès yi ñu fexe ba sénégalais bu dee diaspora ñu delloo la nu mu gën a gaawee si sa famille ñun loolu rek la ñuy wax voilà loolu loolu problème mu ak ak ñi nga xam ne ñu ngi leen tëj si kaso yi ñu nekk diaspora ñu tëj leen si kaso yi ba pare état bi fi nekkoon doon leen seetaan xam nga lii yëpp yëpp yëpp mën nañ ko wax ay problème la mais xajul si vidéo parce que sénégalais yi amuñ connexion bu doy ñu si bari dañuy taxale rek pour connecter moo tax vidéo bi da ngay tënk yow miy lire vidéo bi nag yow yaay comprendre kii lan la bëgg a wax mais le problème oto yi moom na nañ dindi dar yi nañ dindi aas yi parce que ñu bëri ñu ngi dugal ay oto Sénégal même douaniers yi ak policiers yi am na si ñoo xam ne oto yi oto oto yu amul këyit la ñuy dawal loolu amul fenn parce que fii dëkk yi ñu nekk douanier yi ak policiers yi oto bi leen état jox lañu am droit di ko dawal comme particulier mais bu dee seen oto bopp bu ñu dem jënd dañuy fay assurance fay taxe fay lépp mais Sénégal da gis koo xam ne benn douanier wala benn policier day jënd oto du am këyit am dara ma xam rek lay di ko teg ci kanam boo ñëwee xam ne police la kenn du ko contrôler mais loolu day delloo état bi ginnaaw loolu loolu jëmalewut jëmalewut lu mel ni koor yooyu tax koor yooyu duñ duñ nangu duñ duñ def yu mel noonu duñu lekk ger duñu def dara mooy simmi da ciy xaj parce que loolu yooyu daan yu métti yooyu moo tax benn corps du nangoo jalgati di nangu di di ñàkk euh, euh, euh, secteur bi nga xam ne mu ngi ko gérer di di dootu am lu mu yóbbu ci famille bu ko leeree ne bu lekkee ger sanction bii nii métti na day bàyyi du lekk ger mukk mais ñun li ñuy wax xam nañ ko de maîtriser nañ ko tamit